maa ma dama ne woon sax lii duma ci wax ndax depuis bërki démb la woon ba tey maa ngi soog a xam nag sa capacité man bërki démb laa la summi sàpp mais maam ma nan la nit mën a duggee néegu nawleen dugal fa garab ne da koy sëriñtu Rose ba mu ma ko waxee damaa taf sama gémmiñ dama ne nag ndekete kii du nit dama ne ko maam Marème du nit man dama koo sumil sàpp man dama laa sumil sàpp maam Marème ndax man yaakaaroon naa ni li ngay def lépp lépp lépp lépp eggoo foofu sëriñtu sëriñtu ba jël téere di ko dugal sa néegu nawle mais Rose mënul Rose mënoon na laa rey et je serai le témoin oculaire na laa dóora dóora dóora dóor ba toog sa kaw suñ ko yóbboo tribunal ma ànd ak moom nekk témoin bi ma ne ko yow la ndekete baaxoo guddi baaxoo bëccëg luñ la waxal rek yaa ko def yow lekk sa lekk sax wóorul yow mën nga maa posone su fekkee sa nawle nga bokk ak moom benn boroom kër tey jii bu ko fi yàlla am mayee bant seen doom yi bokk benn baay nga jël ko di ko sëriñtu yéene ko jàmm yéene ko salaam ça c'est honteux c'est honteux ma marraine et c'est pas normal du tout ndekete yow doo nit lu mu la waxal yaa ko def nga muy xulleeg sa kanamu dem yoonam gi yow dama laa suur ba pare déception bi ma am ci yow maam ma rek yàlla bu ma ko am yow man xiyaam moom rek nga fay jëlee comme yow kilifa nga goo xam ne luñ la wax rek nga gëm ko yow lan la yow loolu buñ la ko waxee war nga kaa gëm bañ a gëm yow sa turam fii sax dina raw ñun la pëkk-pëkk hélas maam Marème dafa jël ga man sax du ma si jaar wax lu ñaaw yooyu man de xaw ma tax ngeen bañ ma fii laa toog defar ndox bu tàng gisuma kudd ma ne xaaral ma dugg néegu rose ut fa kudd xëy na su ma fa sax su ko fa fekkee jàmm dina am suñu diggante ndax moom boobu ba léegi maa ngi koy wut si jàmm muy daw rek dugg si biir néegam mu ñëw doxee ma ginnaaw naa ma ay gaalaaj ba doon man kër gi bis bu ne man maa fi nekk man kese yow nga dem moom mu dem su ma fi bëggee suul gaalaaj du ma ko fi def mais moom mën naa xaar leen lu loolu wala su la ko waxee sax nga rafetal ko waaye nga ko su muy dem gendarmerie buy dem tribunal man maa lay accompagner kon yow loolu rek mooy sa xalaat loolu rek nga mën a xalaat yow mënoo xalaat leneen ne ko lii baaxu wala nangam wala bul xalaat loolu xaar ba nga gis ko wala nàngam sàngam mais yow daal yow. fuñ ne laa wow na rek nga ne koŋŋ. dama laa xam tu es audacieuse dem naa imam woo na leen dara fa ma woo chef de quartier dem këram mu ñëw fii dara fa jógu say pexe ëpp na loolu hmm. nga naan ma wax ko lii wax ko laa pour lan te ma xam na xam ni nga capable waaye di nga xam ni Rose sax moo ñàkk fayda hmm. waaw Rose mënoon na laa dóor ba damm la te su boobaa dara bu ci dikk ndax yow doo nitu dara nitu kasaw kasaw la nitu fitna nga baaxoo chaque jour ma wax la ko da ngay créer safaan wa jàmm doo ko woote bëggoo ci dara tey soo bëggoon jàmm doo xaar sax may woowee ay imaam ak ay chef de fii nga doon benn benn naan ma Rose sëriñ Rose indi na fi sëriñ Rose ci sëriñ la dëkk lu mu am jox ko sëriñ yi yaayam fii ndekete yaa ko yées sa bosa ngi nii di tege yow la ñu jàpp yow la <laughs> doo rus sax rus sax doo ko def soo doon glace defe naa ni di nga seey. su ma seey yaa may naan xam nga lu ma la bëgg xamal nga réglé yow ko ne yaa tax Rose fu ñu waxee ñaari ba maama dama lay dóor dama lay nàngam dama lay sàngam yow xool nga ma ci sama bopp bi ba ci sama tànk yéene yow Rose mun na maa dóor Rose ku ko mooy Sénégal ak Amérique ak France ni ko dóoral ma Marème est-ce que dina ma dóor gis nga bis boo ko fi jayee di ko jay di ko jay ba mu songu may def may dóor su boobaa nga xam ne hôpital Grand Louga bee sa kër lay doon ne dinaa ko ñuusa ñuusa ñuusa ñuus ba yëg ci kaw di tànn ceeb yow de maa mën a dóor ba Rose man maa dóor loolu nga def si xelam mi jay ko fi Rose daal na jéema rek na ma compes yow dóor nga wax dina xam ne bii yaram du sirop du ay doom du fonde naturel la dóor nga wax waaw yow ngay kopp baax na yow Rose baax ma waxuma la dóor mais mën na laa rey. waaw baax na. yow Rose chaque jour maa koy fem te danaa ko bàyyi li ma la wax rek. très bien. arène laa leen di tëggal. waaw kay dinaa sama kër gi arène la. defal loolu. ku ku mën sa morom duma. jeex na man yàkkamtiwuma gis nga man duma dem ca làmb ja di bàkku damay jóge ca làmb ja di bàkku parce que bis boo jayee Rose ba boole ma moom su yow xam nga ma sax yow yow jarul ma lay wax sax yow xam nga ma man. yow Rose moom a xamul ndax du maag moom waaye yow moo koy séqal ay ah yow tamit nag si te leen laa lay xamal de man nga yab ñu ñëw wax ne damaa dugg néew dafa def ay garab ngaa ma sa lekk jarta lekkal sa naan jarta naan yow ñaata at maag yow ñaata lekkoo sunguf gisoo may te ñi kii ñëw wax la fenkat bi yow Rose dafa mën a nett Rose dafa mën a fen yow mës nañoo toog fii rek ba ma ne la Rose nangam ak nangam te Rose dafa mel ne masunu waaw. yéen a yem day fen tu es capable de tout. yow si yee. eh yow laay waxal de. xamal damaa bëgg xam ba xam yow kër gi yow yaay kilifa bi wala kër gi yaay borom wala kër gi yow yaa fiy wodd wala yaa fiy takk tubéy man ma xam ko tey man kër goo xamante ne ay sëriñ nii la ñuy def vaye ve vaye ve mel ne kër gi dafa ay rab wala kër gi dañoo war a nëppal wala lan ku nekk di jël sa sëriñ di indi ci biir kër gi Rose mu ngi ne di fi benn sëriñ ñetti fan a ngi nii waa ji di fi jaabante ci kër gi su fekkee dangaa tayle sa kayitu kër gi mbaa nga viol doomu jàmbur wala nga def na ko su noonu bëgg a mucc wala loose mais sàcc alalu jàmbur tax ngeen fii indi sëriñ bala ngeen bëgg ma fee génnee man ngeen wax ma ko seen yi soof na ma kat soo ko mënta lijjanti nag wax ma ko man ma lijjanti ko wam ne kocc ne koroj ndax yow matoo pare nga ñaa pare ñoo nga sa ak ngay nga yàlla bu ma pare man te du nee nga yow jéegu ñay nga waaw yow yaay yow yaay mën lépp wax lépp mën lépp lijjanti ko lijjanti ko yow xanaa Rose dala cee jiitu mais yow yaa ko yées yaa ko yées li ngay def moo gën a pur li Rose di def yow màggetum yoor yoor nga yow booy génn kër gi yow xam nga Rose dafa indi wane ñëpp gis mais yow defoo loolu yow yaa ngi koy def ca àll ba te booboo gën a pur ndax bu réeréex doo xam foo ko suul bañ koy sulli yaa gën a bon ñëpp te dangaa lakkale da nga xam ni man nga fiy fekk lu ngeen def baax na li ngeen ma deseel mooy gas ma suul ma kese ngeen ma bëggal def leen ko. yaa ngi ci yoon man xam naa loolu. moo tax nga xëy sol sa lu weex lii. su yeboo. kon leer na la juróom-ñaari mètre per carré ci tegu rek sa jàmm ma pareel sama bopp. ndax dangaa ñàkk fayda matoo matluwoo moom sa kër gi indi fi Rose man Rose loo gis si moom laa xamul dangaa yàkkamti woon gis ko defee daa dégg rek wala daa mokk poñ tey yaa ngi nii ba mu duggee ci kër gi ba léegi xam nga Rose daa ay gaaf lekkatoo ba suur naanatoo ba màndi problème suba problème ngoon kër gi mel ne sawar gu tas xoolal sa bët yi yaa ngi wow kongo ba mel ne jaaykatu ko ko kenn xamul looy dox nga ba sonn yow juuti sa xalaatane xam xa ma sama jàmm yow gisagoo dara. yow ku bon nga. yow boo xamoon ni ma la jébbee fi mu toll nii sax mënu ma la kaa wax. yow mënoo amee sama jàmm. waaw moom a gën a gën da ngay def ne kër gi yow ko moom la fi ëpp man maa fi am ay doom te leen ba nga xamante soo bëggee koo waxal ne ko génnal dangay dem sa kër baay séen fii nii samay doom a ko moom gis nga sa Rosemary biir bu yàqu sax amu ko fi kon xam nga ne kër gi maa fi ne faax toog maa fi ne faax. génnal ko génn ma yow. yaa gën a bon rose. maa tey yow da nga maa lépp yow la. yow gàcce la nga defaree. lépp yow la. yow gàcce la nga liggéeyee ndam dootoo ko am ci kaw suuf xanaa nga fase rose fase ko. soo ko fasee am jàmm dundal sa àjjara di dégg papa di dégg manque di dégg ba chocolat ma yaa ngi nii yow kañ nga gëj a gis ko raay sa bopp baa ngi nii xànq mel ne raaraan déggatoo jàmm gisatoo jàmm man moom dootoo am jàmm ci man. Rose mais tamit amoo jàmm ci moom ndax Rose gën a sonn ñëpp amul jàmm dangaa defoon boo ko takkee ñu da ngeen nekk fii di fil di filaale tëdd ci fëte yi àndandoo yow yaa gënu nag xam ne takk yomb na waaye foo koy consommer moo jafe yow bànneexu ñaareel danga koy dégg rek waaye doo ko am. ndekete boo xamul xamadi xawlaa lay ndekete maam Marème moo gën a bon ci ñu yàlla bind. ci li yàlla bind. yaa ci gën a bon. man sama tur bi doo nga baax ci man man Marie Massèye bañ ma tuddee sama tur bi kese kese moo baax ci man waaye sama lépp a bon yaa ko doog a xam balaa ngaa gisaat sama mbaax wala balaa ngay gisaat maam ma woon dangaa fase sa rose ci naqar ngay dee. yow yàlla na nga dee rek. <laughs> oui sama ndey. fii dootoo fi amati jàmm de. fii laay toog di la naqaral. sa xol bi di bineegar di wag ba nga gën a woo koŋŋ koŋŋ ba xëy dee ñu suul la ma toog fii nag ñaa ma si gindigaare maa ngi si gis ma ne faax si kër gi nag eh, eh, ah, ba nga fiy lambar lambari ñëw nga fi benn yoon ñëw nga fi ñaari yoon bii mooy ñetti yoon mais lan wut sama kër gi te dama gis ni sax depuis bi nga fi dalee ñëw ba tey mbir mi dafa gën a empiré wu sama kër gi defoo fi dara gis nga soo soxlaa ñaan demal nga toog sa kër ñun ñi fekk la fa mais sama kër gi du marché ba nga fiy lambar lambari lu leer laa la wax sëñ bi dañoo waxtaan dàng en tant que jullit ak moroom jullitam ndax am naa yaakaar ni yàlla bi defaram demee ni ko yàq sa toma bi nga wax ak man nag seen duma xoon ci yow ndax boroom kër doxee nii non dama sonn dama gis ni chaque jour yaa ngi ñëw chaque jour yaa ngi ñëw mais soxlaw ma lii ci sama kër gi dëgg la soxlaw ma ko fi ñëw nga benn yoon ñëw nga ñaari yoon mais da ngay bëgg a ëppal d'accord sooy ñaan da ngay sa néeg nga dem toog fa ñu fekk la fa. mais pas ici. ici sa chez moi. lu wér lu wér nga wax sa kër la yaa ko moom waaye ma la fàttali tuuti rek du ñaan yëpp lañ ma defee defee fi nga nekk sa li ne sa kër gi nag bis boo ko xamoon waxuma la gis mi da may wëri yow. nga toog ba ma fekk la fa soxlaw ma ko. dëgg la ndax xamoo ko. xoolal dama bëgg nga génn kër gi. dinaa génn nag ndax indi woo fi. maa la fekk seen sa kër dëgg la waaye naa dénk ñaari baat nga xam ko soxlawuma la de ma ne soxlawuma sa njaboot sa njaboot ñoo ma soxla maa lay wax lu tuuti nag te ma dem ak ma toog ñoom laa yemale képp ci sama jëmm ji su ma toogee sa njariñ la bu ma demee sa njariñ la xoolal demal soo amee yàllaay buur soo ñàkkee yàllaay buur soxlaw ma dëgg la xoolal nii rek ngeen di def nii rek ngeen di def mais sama kër gi xool bu fi ñëwati soxlaw ma sa ñaan. dinaa la nangul li nga wax dinaa la ko nangul ndax boroom kër nga boroom kër nga mooy boroom kër te ci tolluwaay bi ngay waxee nii nii dama lay accepté ndax ku ku yor njaboot ku ne da nga ñaaw njort waaye man lay seere sama diggante saa boroom rek lépp lu may def du ne maa suur sama boroom. ba yaa ngi fàttaliku nag tuuti ci gannaaw sama première ñëw fi su ndaje man ak yow ba dee ma la waxoon ba léegi ci laa taxaw lépp lu ma def lu ne maa seet sama diggante ak sama borom waaye nag dinaa la waxaat tuuti nag lu bëriwul seen yi man ma ñëw moo gën ci yow ndax su ma demee bu ne danañ ma fekk ji te boobaa li ci yow lay jugee. ndokk dama sonn ba nga fi dalee di ñëw ba tey. gisuma jàmm gisuma salaam mbir mi dafa gën a yokk soxlaatuma ci dara dara laa ci soxlaatu. dëgg la ndax ku la xool si jëmm ji yow instant nii nii nekkoon naturel. nii rek ngeen di def dangeen di ñëw kër jaamur yàq ko yaxet génnal si biti. dinaa dinaa dinaa dem de mais dinaa benn baat bu tuuti bala maa dem benn baat laa dénk rek kii xaw ma sa aaw la xaw ma sa lu doon na nga ci moom nag. déggal li may waxat bàyyi ji xel bu baax nag. xool barki démboo njaay nga naan ma aaw ak ñaareel. yow barki démb nga fi ñëw bëgg a xam kër gi. li ma lay wax du sa du soxla si ndaw si moo ma ko wax du kenn moo ko wax lu ma gisal sama bopp la jëxëran luñ ma nekkee ci làmmiñ de sa soxla si ndaw si nag ngay sàggane jéem ko fonk bu baax. sëñ bi dégg nga ma rek. te xam ne soxla si ndaw si la suñu borom dénk nit gënu ko ci kaw suuf te ku ragal yàlla saa borom la na nga tee na ci moom bu baax. ndax yàlla nëbbi ab jaam yàq du ko gis de. sëñ bi génn sama kër gi barki démboo Njaay kese nga fi ñëw bëgg xam ku bon ak ku baax lijjantiwuma loolu jéem maa xam ku bon ak ku baax xam nga lu ma la bëgg a xamal nga dem ñoom buñ la soxlaa danañ dafa fekk. lan nga gis yow. loolu laa gis. ah sëñ bi. eh. te ñooy waxtaan ca teel. demal. ma dem nga gis. xoolal déggoo li ma la wax ku am yàllaay buur. ku ñàkk yàllaay buur baax na ritto dina fekk jëf yees mooy yow nii rek lañuy def kër yëpp ñoo ko tas ñoom yàq nañ kër yëpp yëpp yëpp mu njëkkee naan ay sëriñ lañ man xaw ma damay bëgg a dee xaw ma man du bëgg non <laughs> eh, sa gan gi teel naa dem di daa waxoon day yendu xam gis nga da ngeen dama ñàkk fay ñàkkuma benn fay gis nga yéen ñëpp dama leen di réglé comme montre lu leer laa leen wax gis nga man maay seen kilifa da ngeen di mën a réglé ñu ànd mënu ko ku ne jël sa bagage dem sa yoon. Ah, sama xol bi daa sedd. waaye yow. gis nga ko ëppale mbokk mënoo koo jëw gis nga koo xamul lu ko yaayam bootee soo ko bëggee fexeel dangay sonn